Salam alaikum la famille j'espère que vous allez bien moi je vais super bien. alors la famille Akhlou Paradise dañu génne Ben benn son bu comme d'habitude son bi commencé na être polémique parce que dañ ci am luñ ci wax loo xamante alors man déglu vous son bi ba mu jeex bien, clip nice dope euh, mais en tant que fan de parce que dans mon si ñi nga xam dañuy depuis Ahlu Brick sen son sama choice ba léegi amul ben son bo xamné raté nak ci ñom wala ben clip donc man en tant que fan amna droit joxé sama avis ci sen contenu alors son bi li tax mu jur polémique moy dañ ci ni malakal moti lañ ci doon waxal di melni ku koy jox ordre nan ko ñi nga wara jël ñe nga war fi ñe nga fi wara a té lolu buñ ko défé dafa melni yalla suñu borom lañu jox ordre parce que yalla malakal moti yalla la fi nekkal di doxal émission mais wax ji nit ñu commencé ko jël def ko fowukaay def ko challenge parce que Sénégal moom dëkku challenge la léegi te yéen waa Akhlou Brick seeni son dafa bokk ci son yu gën a challenge ci Sénégal donc am na ay wax yoo xamante ne war ngeen ko soigner parce que malaakal mooti ak yàlla ak ay ki nga war a jël wutul ci game bi dara ñoom ñaar nii la ñu def xajul ci game bi et puis waroo leen ko wax ñun en tant que doomu aadama waru ko wax mais maa ngi gis ay nit di ci wax mais koo xoolee seen i commentaire dañ naan laan nangam sangam lii du dara ay xanaa xamoo yàlla ça veut dire que ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi wax analyser wuñu sax wax ji fan la wax ji toll. bu leen foog ni axlu birik waruñu mën a jum ay nit lañ ñëpp ay jum wax jooju ñu wax xawma ban contexte lañ ko jëlee parce que rap la d' accord rap contexte la d' accord mais contexte bi même bu leeroon nañ ñi ci bëtu ñëpp waruñu war waroon nañu utiliser beneen terme bu dul ay malaakal mooti ay kii nga war a jël wala kii non parce que loolu ça se dit pas Malakal moti wax joju noonu vraiment rafetul Akhlou Brick Paradise te man en tant que fan suis pas d'accord donc man je vous suggère bu ëllëgee ngeen gëna a xoolaat texte parce que da ngeen influent lépp loo leen wax tey ëllëg am na beneen génération buy ñëw mën nañu référé wu ci yéen que ni yéen waxoon ngeen fi lii jurul dara donc ñoom aussi mën nañu ñëw wax lu gën a pire loolu alors que là ak li ñuy def dëppoowul fii nag Sénégal comme li ma wax sànq rek wax duñ ko vérifier duñ ko xool comme que son bi neex na wax ji dóob na rek nañ ko jël challenge ko quoi. son bi bari na ay parti mais boo xoolee parti boobu rek lañ ci gën a jël alors que wax ji waroon nañ ko mën a segg xool ba xam ndax lii jar na def challenge wala jar na def ay faux wala déet mais ils n'ont pas le temps te boo ci waxee yow dañ naan la noppil waroo wax nagam sangam non je suis pas d'accord Akhlou Brick Paradise la prochaine fois xool leen bu baax li ngeen di wax parce que vous n'êtes pas n'importe qui seeni wax dafa am ñoo xamante ni dañ koy consommer te boo leen ko waxee rek ñoom dañuy jàpp ni lu baax la alors dañuy euh, lépp luñ ci bëgg a def dañ koy def en tout cas loolu moo nekkoon sama opinion ci affaire bi donc euh, su ma sañoon boo leen di waxati beneen affaire di ngeen ko seetaat parce que je pense que boo leen waxee loo xamante ni dafa jur polémique yéen la neex parce que xam ngeen li nga xamante ni moom la sénégalais yi di wax xam ngeen liy def polémique ak li dul def polémique en tout cas je vous suggère la prochaine fois ngeen gën a xool seeni parole man nag je suis pas là pour wax ci Rab Galsen wala pour attaquer kenn attaqué wu ma leen parce que ñoom peut-être am nañ ay raisons yu tax ñu wax ko là je sais pas mais man sama opinion personnelle mooy waruñu wax wax ji et puis je parle pas de Rab Galsen sama opinion laa joxe en tant que en tant que fan peut-être am na ñeneen ñoo xamante ni buñ ko waxoon mën naa ci bañ a addu mais comme que yéen dafa am fu ma leen teg di leen béggee am naa droit joxe sama avis ci seeni affaire c'est ça en tout cas c'est ça jaa jëf